wonde bo mbaaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye wonde bo mbaaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye wonde bo mbaaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye wonde bo mbaaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye jàmbaar naka mu. eh sant borom bi sant borom bi ñoo ngi woo ñëpp ba Algérie États-Unis Maroc eh, ñoo ngi woo ñëpp ku ñu fàtte dañu juum ñun ay champion lañ yal na ko yàlla may ndam yal na ko yàlla may ndam ñun du ñu wax gars yi xamewuñ ñu wax du ñu wax ndax wax baaxut mais incha allah rabi dina baax incha allah rabi dina baax. xoola xale yu baax yaa ngi xale yu yaru yi dëkk nañ fu ne dëkk la nañu fu ne bu neexee yàlla ndam rek ndam rek. mais gis booy si tey booy si tey nee fu mu toll nii Ama Baldé lañ soxla ñoom. eh loolu du Thiès loolu du Thiès duñu moroomam na wax ak ñoom Pokola ñooy moroomam eh loolu du Thiès ah. eh loolu ko wax biir Pikine yéen ñi ñëw fii di ko wax sax porté nañ leen plainte. 1700 fois. waaw waaw. 1700 béy na doo ko wàññi. 1700 fois. bu kenn wax. borom dëkk bi ngay wax. waa Cité ne nañ fi mu toll nii yéen lañ soxla parce que yéen combat bi yéen dañ si dugal seen loxo. ndax dañ si dugal suñu loxo non mënuñu si dugal suñu loxo ñu neutre la ñuy defee ñoom dama bëgg ñu yaru rek xam ne ñoom jooyu mbote la ñuy jooy ñu jooy gaynde la ñuy jooy. baa leen di wax Ama di wax Siteu. Siteu barke Sëñ Fall. baa leen di wax Ama di wax Siteu. baa leen di wax Ama di wax Siteu. baa leen loolu Ama dafa daan ay champion ay gaynde baa leen di wax Ama di wax Siteu sul bukki sul bukki baa loolu kii bukki la kii li mu boole dafa bari kii. léegi comme ay kii may ma ma ñëw may ma may ma ma dama na kii du borom sax ah, dëkk kii du borom dëkk kii borom àdduna la kii woo moom àdduna eh, àdduna àdduna eh Siteu na réglé moom na dal daa am ñuy wax mais moom du wax de moom moo la gën a xam fii moom xam na fii te ñun sax ñun ñoo bëgg ngeen di bàyyi di wax Ama di wax Siteu Ama mën si làmb billaahi wallaahi wa taalaahi Ama mën si làmb si moo mën si làmb laa la wax ñoom ñëpp moo leen mën te yàlla na ko yàlla may ndam si lii mu jëm lii sax kon lu ko bëri di waxee di ñuy wax Siteu Ama ndax loolu sax du respect si làmb ko ñoo koy wax respecté ñooñu gaynde gi dafa doon nelaw jour boobu gaynde gi borom dëkk bi moo doon nelaw booy bëgg a dugg biir Pikine rajaxe Pikine te loolu mënul nekk fi ay champion fi nekk ay réel ñu ngi def vidéo di saaga nag di def lu ne mais na leen di wax ñoom nañ yaru nañ yaru ñoom jooyu mbota la ñuy jooy ñun jooy gaynde la ñuy jooy bokku ñax ñoom Baye Siteu mi ngi si yoon dëgg la la mi ngi bëre mi ngi daan loolu kenn munu ko weddi moo ama force dañuy laale mais heure bi bu ñu ko dugal si ama naat bu ñu ko dugalee si ama ama dina ko gaañ te ama bu ko gaañul ñun ñu bàyyi ama ñun billaay bu dof dof loo ba champion bi jël combat bi ah moom dañ leen ko gaañ génnee ko làmb ji te loolu la ñuy si moom champion la ñun dañ koy suivre ndax wax yu nice si muy wax jeunesse bi xam nga chaque instant boo nga timee micro mi wax lu nice di wax jeunesse bi lu ko jëmale kanam xam nga kon kooku ñun tamit xam nga am na fuñ ñu ko teg kon kooku am na fu ñu ko teg barki sëñ Fallou waaw mais mi ngi si yoon nag si làmb mais heure bi noo ko waru moom mooy jël ama mais ñi si ginnaawam ñoom ñooy wax mais Siteu yebuñu yebuñu ba muy laaj bàyyi di wax loolu Siteu Ama loolu du combat Siteu buñ ko jëlee jamono ji dañ koy gànje te bëgguñu ko gaañ na nekk si ay yeneen booy nii rek ba si kanam. oto bi si kanam la ñuy corné xam nga ñoom ñun ak ñoom du concurrence amaana ñoom ñooñu tëg bët ba ak Serigne Bamba xam nga ñun xam nga ñun ak ñoom du concurrence quoi xam nga voilà ñoom nag am nañ droit xam nga tëkku Ama wax xam nga waaye loolu dañ leen koy nangul waaye Ama Siteu du concurrent xam nga te du baak sëriñ Bamba am da koy boom billaay wallaay taalaay xam nga bu ñoo comprendre nag xam nga dañuy jëndee seen i jëndee te fii xoolal lépp am na fi lépp lu ñuy jaay fii la buujoo xam nga voilà da nga def si yar ak si rek ama suñu waree bëree dañuy bëree ama ñëpp lay bëreel bëri nag ay moroom instant ay magam lay bëreel su paree ay moroom lay bëree waatal bàyyiwul kenn su jotee rek yomb bu ñu koy yàqamte billaahi bu jëriñu koy yàqamte di leen wax Siteu ak kii di Ama Baldé ah Siteu Ama Baldé Siteu moom moom duñu Siteu Ama daka raw Siteu day xaar. Siteu boo amee fi romboon keroog naan ñu ay Ama Ama si rek ñoom daj nañ fi lu metti avant ñoo génn Pikine sonn nañ mañ daanay Papa Sow naan ay Ama si des nañ. sànni xeer loolu la ñu wax. waaw parce que ñoom Ama Ama du seen morom. voilà. parce que dem balaa ñu ñoom yéen leen sànni xeer waa Pikine ñoo doon sànni xeer. waaw xam nga nag nu mu demee déglu ma balaa ma di jeexee. ñi nga xam ne jël nañ jël nañ euh, autoroute bi dem Diamaguène dem ñibbi ñooñu kenn sànni leen xeer dara dalu leen dafa am boo yoo xam dañoo dugg biir Pikine xam nga di saddal Pikine comprendre nga di def ay bés ñëpp ay nante lañ saa ngi dégg voilà ñun ay doom Pikine lañ duñ nangu loolu xam nga seen jeex na nañ jël technopole bi jël autoroute bi dem ñibbi xam nga ñu jël autoroute bi dara dalu leen waaye ñoom nag ñoo dugg biir Pikine xam nga di teg ay business xam nga di di ruube xam nga di yàq deru Pikine te fii tamit xam nga gaynde gi fii lay yeewoo quoi buur bi waaw ah mooy senegal bak Serigne Bamba suñu nelaw kenn war kaa déranger te kenn du ko déranger buur baa ngi lamb kër fa laay ba la ne amaaye ñu ne xaaral ñu jël ko rek ñun moom ku pour cadre Siteu moom amuñu dara lu muy wax lu ñuy wax ak moom même Siteu bu ñu yàlla boole sax lamb boolewuñu Siteu mën naa ne xaalis moo ñu boole mais lamb boolewuñu. moo ngi def performance. bokkuñu catégorie. Siteu da nga koy lekk de. mais nee na la soxla. non ñun ak moom du lamb ñun ak moom du lamb keroog fii lañ ñëwoon booy jàmm gën yi. dañoo baare talim ñu ne kenn du fi jaar ñu ñëpp a defaat demi tour. wallaay dañ leen sànni xeer bañ daw ñun ak ñoom du lamb. a nga sànni leen xeer. ah mais xam nga rek affaire de lamb la rek parce que xam nga dañuy ñu suñuy zone ba pare di dugg si boutique yi di sàcc ci ba rek di def ay scandale yoo xamante ne laisse tomber quoi loolu ñu dëbal leen pour suñu sécurité quoi pour défendre suñu bopp. c' est normal tamit xam nga nit boo ñëwee si zone am c' est normal mu défendre tu vois mais ñun ak Siteu moom làmb boolewuñu yàlla xam na loolu logique logiquement ñun ak Siteu làmb boolewuñu xanaa nag xaalis moo ñuy boole mais ñun ak Siteu du làmb waaw. bu bu ma laaj ay Siteu am waaye. loolu la. ñaa ñi ëpp supporter Sénégal. si Siteu am na ay supporter mais c'est normal mu bëri supporter Diamaguène benn kër bu nekk cent vingt personnes moo ciy fanaan boo ko teg Pikine xool logement Pikine ak logement Diamaguène benn kër 122 nit dafa fanaan te bu ñu demee làmb nekkul ñëppay dugg ñii dañuy xaar ci buntu bi pare sàcc ñii dugg supporter te Pikine gars yi dañuy sant lu rafet dem supporter Ama mu génn ñu dox suñu dox ku ñu teg loxo ñu dindi say wee eh, ñun mooy loolu. pare ngeen pour. non bu ñu làmb boolee na ñëw ñu bëre xam nga léegi léegi permanence booleetul xaalisay boole ak mbooloo bu ñu boolee rek mu ñëw ñu bëre. ñun daw ñu Siteu ñun ñun ñun xam nga la mooy problème bi Siteu supporter yee koy wax mais waxu ko ama ah, supporter yu mun nañ koo yeb waaye Siteu du ko yeb mukk Siteu xam na kan mooy pël bi mafia bi dafa diite caw sa xiir na gaa yi xaar ba ci kanam pare nañ fa bu yàgg jaajëf fu ñëpp supporter Siteu yi neen fu mu toll ngeen bàyyi avance boobu ngeen jël non Siteu moom waxul loolu ma koy nuyu sama frère la di ko ñaanal ndam li jik ko mais Siteu moom waxul loolu moom. supporter ah mais xëy na loolu lañ bëgg mais bu ñu làmb boolee ñu bëri après ñu suñu jàmbaat moom mais moom dafa bëgg sama papa moo tax mënu ma ko wax dara borom baax la Baye Fall la moom dafa fan ama te nit ku baax la waaw moom ah, waaw bu ñu boolee rek ñu bëre après ñu nekkaat ci jàmm ndax moom tamit borom baax la kii borom baax la ma koy ñaanal jàmm ndax boo gisee ni mu def gàlle fóode rek kooku mun ma wax ci moom daalu sore waaw ndax dafa ma bëgg dafa ma fan Siteu sama xarit la bokk yaayam rës bokk yaayam zigi malle waaw maa ngi koy félicité bu baax moom sama xarit dafa maa bëgg sama gaañ la xam na li ma wax dafa maa bëgg moo tax moom mun ma wax ci moom dara lu sori waaw ndax moom foode moo ñu boole ndem si yàlla si mais bu ñu làmb boolee rek ñu bëre kam ko tàppet bi daw na bu ñu yàlla dem ah Modou Lo comme que ragal na kay tàppel la daw na. mais moo daan Gris Bordeaux ñaari yoon. yéen ngeen jël Gris Bordeaux est-ce que loolu du risque. ñaan yàlla rek daan Gris Bordeaux su paree moom mu ñëw ñu daan ko après bu ñu waree may Siteu chance ñu may Siteu chance. senegal jëm kanam. Siteu nag. non Siteu kooku kooku ñun ñu ak moom xam nga làmb moo ni boole sax dama duma ni làmb moo ni boole xaalis moo ni boole ñu ne moom du combat quoi. xayra dafa am populaire te ñun daan nañ fi ñoo. bu dawagum xaaral. daan nañ fi ñoo xamante ne nii moom daanu leen bëreegul ak ñoom ñun tafaatin mooy suñu barrage bu bëggee bëree ñun na jël tafaatin ba pare. xam nga Malick Niang waxuma maali Niang moom waxuma waxam na jël tafaatin ba pare. bu daanee tafaatil après ñun ñu may ko temps mais instant yii mënuñoo wax ci Siteu wala si kenn nax danoo am combat quoi du dëgg ñu ne Gris Bordeaux bàyyi ba ñu génn si Gris Bordeaux après ñu doog a wax ci leneen. mais Siteu Ama Baldé mu nekk combat boo xam ne moo nar a laat làmb. waaw mais du léegi xam nga ñun actuellement nii suñu combat bii ñu jëm nii la mën a wax mënuñoo wax suñu combat boo xamante nii taxawagul ñun ñu ne Gris moo nu gën a ñor bàyyi ba nu génn si giri bu nu génnee si giri ñu soo xool Siteu mais pas instant yi nii ñuy jël Siteu xam nga di wax ay coow ñu ne Siteu du du combat quoi bàyyi ba nu pare si giri pare si Modou Lo soo ko waxi Siteu ah bu jëlee roi boo yëpp mën na leen may sax ba si bébé Diène waxuma Siteu de ba si bébé Diène sax mën nañ koo may sens loolu la rek. Siteu gannaaw bu amee ndam si Papa Sow moom neen fu mu toll nii Ama Baldé rek la bëgg. Siteu da xaar surtout loolu tamit. na dem xaal na xaal Pokola. <laughs> waaw leen lii. Ah, ah, ah. mais daaw lu nga xaar Pokola. kooku la a jëflanteel. leer. du ma wax Ama ma la. Mhm. na ko xaar lu muy yàkkante. du ay moromam dañ koo xaaroon. na xaar ay moromam. kookooy moromam. kooku la mën jëflanteel pas Ama Balde. mais pourquoi la instant yi moo si lamb moo ngi si combat. yàlla na ko ci yàlla génneex jàmm salaam yàlla may ko ci ndam lu gaaw te sedd. loolu lañ koy ñaanal yàlla ñun yàlla la ñu am moom la ñu moom la ñu yaakaar. Siteu Siteu nee na moom fu mu toll nii Ama balde rek la soxla soxlul keneen. Siteu xanaa ah Siteu teem ñoo bañ a yàkkamte. <laughs> mu ngi yàkkamte musibaam. ah ah man yàkkamti na rek. Mm. xanaa déggoo ko nee na moom ku ko mbéj takkusaan mu koj la timis koo koy Ama Baldé waaw kay ne leen Siteu mu réglé ba ci kanam waaw Njoko Njal Njoka Njal nam ne Mariama Senghor Gena Mbasis Loog maire Mbayang Loum Siteu nee moom fu mu toll nii wala supporter Siteu yi nee na yow nag lañ soxla ñu lañ soxla moom mën nga nekk si maire bi duñu laaj wala nga ñuy tëgg mais Ama Baldé Ama Baldé nekk na Ama Baldé boo xamante ne moom bu soo lekkee avancé am nga dugg si ba si mu dugg si non da nga xamante ne nekkul bor bu ñuy tëgg si mbedd. Mhm. yéen pour jàkkaarloo ak Siteu. Siteu non instant am na loo xam ne moo nekk kanam te loolu ñuy gis quoi waaw am na loo xam ne mi ngi seen kanam te loolu ñuy gis te loolu ñu tax a jóg waaw bu ñu jëlee si loolu par après dañu xoolaat rek lu mu laaj ñu rek waaw lu mu laaj ñu defal ko. jërëjëf jàmm. jaajëf góor mais combat boobu Sénégal yi koy waxtaanee. mais fu mu toll nii supporters Siteu yi nee nañ. Ama Baldé rek lañ soxla. moom ñu ne Ama rek lañ soxla. Ama moom tamit ñoom rek lañ soxla. seen digg seen digg diggante Ama ak supporters yi. ah Ama supporter la soxla supporters yi soxla ko. waaw ah, ñoom ñaar kenn mënul bàyyi sa moroom daal. kon fu mu toll nii pare ngeen pour nañ pour bëre. ah loolu biti la fanaan. da loolu biti la fanaan. ñoom ñaar ñëpp ay morom lañu. du jëri xale yi làmba làmb da leen di boole te lu mu yàgg-yàgg muy tey muy suba làmb da leen di boole waaw te ñaan leen yàlla yamal yegg si ñu yegg si jàmm ak salaam yàlla may ko si jël bu set weec incha allah Siteu Siteu nee na fu mu toll supporter Siteu yi nee na fu mu toll yéen lañ soxla mais yàlla baax na ndax sagam daa tax ngeemu ñu ñu tax ngeemu moom deme naa ne avance bi moom su duggoon ñun ñuy lem laamee naa ne Ama Baldé du morom Siteu ak Siteu du morom Ama Baldé moom Ama Baldé moom si jëm boppam. ñeme na jël avance bi moom rek dem bëre ji ko ñëwaat toog fekk ñu fii nii Siteu nag na xam boppam rek yàlla baax na nañ bëre sagam mbër la mbër lañ ñu ngi prouvé nay prouvé rek yàlla baax na ndax mbër la mënuñu koo bañal ñun tey jii dañoo laaj Modou Lo moom su ñëwee dañu laaj suñu mbégte la quoi mais na liggéey rek waaw cuuj day xam lekkam nag ñun finition la ñuy lekk moom démarrage lay lekk instant bi nar naa metti nar naa neex de ñun kuñ jël day metti day neex. dëgg la mais instant yii nii dama dégg waa Cité yi naan fu mu toll nii yéen lañ soxla. waaw Cité Cité day xaar instant yii nii ñu nag moom instant yii day xaar day xaar de. mais Cité Ama loolu combat de. kenn moo ñu tax a jóg bu ñu sañoon làmb avance bu ñëw ñu jël. jaajëf ko jaajëf champion. mais fu mu toll nii waa Cité sonn nañ leen de supporter Cité yi nee na sax ngeen bàyyi avance bi ngeen ñëw ñëw waaw chaque chose à son temps Cité bu mu yàqamte mbër liggéey mooy métier di ko féliciter ci victoire bi di encourager Papa saw parce que lamb nii la def nañ geste bu rafet parce que grand lamb fa la toll lamb nekkatu xuloo xeex di jamante di reyante xam nga affaire yooyu noonu dafa incivisme quoi xam nga lamb léegi dañ ko war a gën ko rafetal gis nga papa di euh, di encourager père père Pape Ba Euh, mooy parrain Papa Sow bi gis nga lu mu def jël na booy bi daan na ko comprendre nga booy bi daan na mu ne ko comme yaay grand demal félicité ko stade bi yëpp a tàccu lamb fa la toll ñun toogaluñ ci ñu xamante ni dañuy xeex wala di xuloo wala di ay affaire déedéet ñun lamb ji bu jeexee gisoo ama bu la daanee day dem ba sew yëkkati la wax sew yu rafet ak ah, lamb la quoi. yéeg Siteu loolu lamb la de te nee na fu mu toll nii yéen rek lañ soxla. waaw man dégguma Siteu wax ko. waaw xañ na waxul supporter man du ma si basé wu. supporter ñooy taxawal làmb. waaw loolu dëgg la man bu mbër mi waxee ne Siteu mu Ama laa bëgg a bëre bu boobaa dinañ ko ton li ñu ko war a tontu ñun ñu ngi koy xaar si lépp. Touba li ngeen koy tontu. kan. Touba lan ngeen koy tontu. non Siteu ñun xam nañ fi ñuy jaar ak moom. lamb bis bu ñu boolee xam nga kii dafa wax wax ba am solo mu ne Gris Bordeaux bu ko Ama daanee bu ko neexee avance bi ñëw bu ko neexee léegi léegi léegi léegi fii ñu taxaw na avance bi ñëw Ama amul ku muy calcul si làmb wax noonu barki Serigne Saliou Ama leen gën a saf sap si lam du de dama ko bëgg de moo leen gën a saf moo leen dàq bëre moo leen ëpp sañ-sañ wax ji nag bëri na nii rek mais bu daree desul lu ñu ñu géewal leen laajal Papa wala nga laaj Modou Lo nañ ko sot bu ne ñime aw. moo Modou Lo moom ñameeguñ ñamanteeguñ. non da nga naan Modou Lo moo ñimewut nee naa la requin yi li mu ko waxee requin yaa ngi si ginnaawam di ko fakasal mais amuñu sens Gris Bordeaux amul sens si làmb ji amu si benn sens man maa la wax loolu. le 5 février incha allah ñu ngi koy waaj pare nañ. am sa café. incha allah merci nee na ngeen bàyyi maanaam avancé yëpp ngeen jël leen. waaw waaw loolu yoon la ñoom seen bëgg-bëgg la ñuy wax rek xëy na ñoom loolu lañ bëgg mais yàlla baax na bu joree rek yomb allah. ah combat la comme yeneen combat yi si mbër la ñu ne. supporter ci Sénégal. waaw ah, mais sant yàlla daal daan yàlla defal jàmm rek. jërëjëf <laughs> jërëjëf gars yi. waa Cité nee nañ fi mu toll nii yéen rek lañ soxla. dafa war a xaar def ndànk tey bu mu bésaat ak carrière am parce que bu day tëkku Ama lamb boolewu leen public bi boolewu leen kese moo boole si te Ama dakaa raw lu bëree bëree bëri si làmb da def ndànk bañ a bésaat ak carrière am waaw bu mu gum Ama ci làmb Ama dakaa raw lu bëree bëri dafa war a liggéeyaat ba doo a waaw. jaajëf ñun waa Diamaguène doy ñu galamdekoo. si la doy ñu galamdekoo waa waa Diamaguène doy ñu. ñu lijjantilu leen néew mu xaar ñu jóge si Modou Lo doom doom parcelle ñooñu doon waa parcelle. waa parcelle ñooñu doon daw Modou Lo ah. atanu suñu gan si la fit fit billaahi wallaahi taalaay wala sëriñ bi nga jaabee fit fit lañ nga fit fit nga xam ne pikin la ñu ñoom te geexal pikin la ñu dañ fay te geexal loolu segam da moom moom billaahi wallaahi taalaay si doon tus wax jee bëri eh, ama yee lañ wax eh sira xoolal demoon na booy jaam nga ne ñoo ñëpp dañuy xaar parce que bëri dem bi moo njaay fii ne suñu aral lañ doon bëree ñu ma teg ay laama ñu ñu yor ak ñu di door waa ñun Siteu bu ñu ko jàppee dañuy xam ne jàmm gën mu nekk di tuus fii ah, Pikine la comme te Modou Lo moo daal sax dama Siteu Siteu ba jamono neex barki sëñ Fall ama ah, yéen lañu wax ba xool day dem jëlee ndam rek ñibbi si dogo ma ne Siteu ñun xalaatuñ ko 10 combats wala 25 combats du doy dañ koy daan xoolal balaa ñu kaa daan day taxawaat arbitre suuf la ñu bëre waat moom. ma si tas. da ngeen yi nee na instant yéen naka. booy si tey. booy si ah. ñooñu dañuy xaar ñun ñoo leen raw duñ moroomam. léegi kaw nu mu def waaso. et après. genre ñun duñ moroomam. de question de ñeme duñ moroomam. genre ñun duñ moroomam. ah moroomam. kay de yaa. wala beneen combat boo xam ne passé na fi si diggante Papa Sow. Mm. ak kii di Siteu. Mm. mais ba Siteu amee ndam. foo dem si jàmm gën di wax mooy Siteu Ama Baldé Siteu Ama Baldé. Hmm. non loolu man dam siy def kon làmb la de ñoom ñaar ñooy combat bu jaadu combat boobu doxoon nañ ko combat bu jaadu la yaa ngi may dégg sax ñoom ñaar ñëpp sumay frère lañu. Ama Baldé dafa nekk nii si contrat mu Gris Bordeaux combat bu jaadu la dañoo war a bëre ñoom ñaar man bañu ma combat boobu combat la yaa ngi may dégg est-ce que xam nga suñu ñaari rakk lañu. mënuma sori ci loolu parce que su leen làmb boole non dañoo war a bëre moom Ama Balde si boppam wax na ko waaw bu leen làmb boole dinañu bëre. waa Cité nee na après combat bi ngeen jël seen avance parce que loolu combat la ñuy waaw Ama moom dafa doon topp ay mbër di leen tëkku bëgg a bëre ñoom bu demee léegi bañ koy topp di ko tëkku loolu sant yàlla la incha allah loolu làmb ju neex la. ban baax lu bees tax incha allah. comme lan waaw lu neex. <laughs> lu saf <laughs> maa la wax loolu. onde bombaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngor maye